alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatihi alxaatimi sayidina muhammadin nasiri alhaadi ila siratillahi almustaqim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 tabaarakallaahu leer googa boo ko toppee ñu mag ñépp jël seen xalima les ko di tagg leer ga di tagg tamit mayure yi nga xam ne leer ga làmboo na ko tabaarakallaahu ci ay may ak ay ngëneel yu rëy yi mu jagoo jagoo ko moom te dara jagoohut ko lu dul moom koo ca dem rekk ca mag ña ma nga lay tuddal leer ga tabaarakallaahu leer ga la maam xalifa ñas góor ak yàlla ga di junji ne leer googa yàlla nga ko dénkoon suñu maam aadama ba ca bàyyee mu dénk ko siisa ca lay jaar jëm ca mahlaayin jëm ba ca axnuux dem ba ca mutawassit leer gay jaar ba ca noox leer ga di jaar di dem di jëw ba xegg ci Ibrahima koo ca dem nag ba leer ga nekkee ci moom rek dafa am jeexital gum wane goo xam ne la ca feeñ nekkul ci keneen su ko defee nag leer googa continuer di dem di jaar fa ko yàlla jaarale ba yegsi ci Abdullahi mu tedd mu sell mooma waaye noonu lay ñëwaatee ba ci saydatuna aminatu noonu lay ñëwaatee ba ci yonantu bi sallallahu alayhi wa mi joxe woon leer gi boo ko doon mën a tënkale ci jamono ni nga ko mën a déggee mooy ne leer gi daal dafa mel ni xaqiqatul muhammadiya booba mooy dugubu jiwu jiw la de jiw dañ koy ji waaye jiw kenn du ko baxal kenn du ko saaf jiwu kenn du ko jaay jiw kenn du ko leble jiw kenn du ko maye yile yépp ku ko def sa jiwu rek boo demee ba nit ña dajale lañ jële woon ci seen jiwu wa rek nga réccu kon xaqiqatul muhammad ya jiwu la jiw la woo xam ne yàlla nga ko njëkk a ji ci toolab aadama bi muy jaar commencé bi meññi jaar ca siisa ca Idrissa ca yonentu yàlla noox ci Ibrahim su ko defee nag loola lépp mooy jiwu wi nga jëloon di ko ci sa suuf si mu nekkoon dugub jaaruwaay yooya mu jaaroon yëpp mooy gattax ba waaye nag ba nga ko defee muy benn ab jiwu mu mënoon benn ba mu demee ba résultat ba ñëwaat mu joxe aw gub woo xam ne maanaam dafay mel ni ni ko yàlla waxee ci alquran rek masalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habatin nambata sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habba noonu lay mujj maanaam di mel kon mooy jiwu wañ jiwoon ki suñ maam aadama mu jaar ca gattax ba di jaar di dem ca fam jaar ca maam ya yu góor yaag yu jigéen ya ba jëmm jiwu ba mu feeñagut bu manoon benn ba mu demee ba feeñ nag mat na juróom-ñaari téeméer ci la manoon démb su ko defee nag kon yàlla moomu moo def loolu jaare la ko ca ci aadama lañ ko njëkk a dénk maam xalifa ne ko bi ka awsaa bi ka ci yow dong awsaa la dénkoon min xablu ci njëkk aadama aadama siisan siisa yow la aadama dénkoon siisa tuux taaru di tànneleef nisaawu ay yaay làkka ñaal la kay tatiiba ngir natteey nisaawu ay yaay làkka ñaal la te naasoo la ci naw ñoom ñaar ñépp dañuy xëccoo nisaawu nisaawu tuxtaaru da koy xëccoo bëgg koo def naayi bu faay tatiiba di ko xëccoo bëgg koo def koo ko ca jox rek nëbbal moroomam ma lam soxla moo tax mu ne ko tuxtaaru kay ba nisaawu ay tuxtaaru nisaawu kay tatiiban nisaawu su ko defee nag aadama ñeen fukki doom la am yum soqee ko ci ñaar fukki biir ñaari ñaar fukki biir yooyu soxnaam si ëmbal ko ko su Hawa ñaar séex lañ daan doon par ñaar góor jigéen góor jigéen góor jigéen ba muy ñaar fukki ëmb su ko defee nag ñaar ñooñu bokk benn ëmb ci góor ak jigéen duñ mën a dencante dañuy xaraam ñi dencante waaye dañ leen di sélectionné ëmbëb ren bi ka cay góor moom la ñuy boole jigéen ab ëmbëb déwén ba ka nekkoon jigéen fi la boole ko góor gële yàlla dogal ñeen ñaar fukki ëmb yi benn ëmb la ci am muy kenn kooku mooy siisa ñaari ñaar tax na kaabil ak haabil kaabil rey na haabil kon ñaari jigéen nañ fi ak genn góor ñaareel bi tamit siisa mile moo war a xenu leer ak sayduna muhammad leer ak yonantu bi duhut kuy box boxloo ca biiru yaayam ndax lu ko fa fekk mu xatal ko te yàlla bëggut a xatal kenn ci lore mu def ko muy kenn moo tax foofu kenn la waaye gis nga yàlla kenn xamu ko li la koy xamal xoolal abdallahi nii di bàyyi yonantu bi séex la moom ak génn jigéen gu ñu tuddee arwa ñoom ñaar ñoo nekk séex ci benn ëmb bu ñuy tuddee jigéen bu ñuy tuddee sayyidatuna fatimatu kon bàyyi yonantu bi séex la waaye première maami yonantu bi di siisa kenn la soo ko bëggee dëppale nag da ngaa bëgg a wax ne rek ne yonent bi la yàlla jagleel lépp luy lu tumuraanke rek la ko yàllay defal ndax jamono ji aadama di am doom ñàkk séex moo tumuraanke woon waaye séex du tumuraanke moo tax yàlla defal ko tumuraanke ci ñàkk séex ci siisa miñ dénk leer ga jamonooy abdullahi séex mooy li tumuraanke waaye ñàkk séex du lu tumuraanke foofa nag séex ma tumuranke mu defal ko baayam mu nekk di séexandoor ci génn jigéen kon jamono ju ne la gën a tumuranke rek la yàlla defal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu defal ko ko nag leer ga bàyyee ko ci aadama waxoon naa la ko ba ko ko yàlla njëkk a dénk ci ndiggam la ne fu mu toog rek malaaka yi wër ko moom tamit mu ne da caa bëgg a bànneexu nag na ca malaaka yi di bànneexoo la ca bëgg a bànneexoo ci la ko yàlla toxalal leer ga indi ko ci baaraamab ndey bi ñii ne indi ko ci baaraamab taaya bi mu koy xool di ca bànneexu malaaka ya continuer di ko xool di ca bànneexu bi aadama demee ba mission xam bëgg a jeex tabaarakallaahu mu war a wuyu ci boromam ci la dagale doomam yi yëg ne sama doom yi ñu fi nekk ñépp siise laa ci laa ci ëpp yaakaar moo ci gën a sell moo ci gën a jub moo ci gën a ragal yàlla moo ci gën a maandu te dénkaane nag sa dëgg dëgg koo hóolu mayee koo su ko defee mu ne kon nag dénkaane bii daal sama doom ji di aadama di di siisa moom laa ci hóolu gannaaw bi ma yàlla waxee ci alxuraan ne man yàlla def naa la ngay sama ngay xalifa ci kaw suuf wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaailun fil ardi xalifatan man nag tey ki may def muy sama xalifa mooy siisa su ko defee nag jël na leer ga dénk ko siisa dànkaafu ko nag ne ko bul ko jox lu dul jigéen gu laab gu teey gu sell bu ko ko jox ku dul kooka de leer gaa ngi nii ci yow la jëm ci bu yàqoo ci yow rekk musiba dal ci sa kaw goo xam ne dootoo ko mën a réparé ba pincam yàlla mu nangu loola nag moom tamit jël ndénkaane ba xenu ko xenu bu rafet bañoon li daloon magam ya dal ko tabaarakallaahu looloo tax mu ko koy dénk li daloon xaabil mi jëmoon di rey haabil fekk aadamaa nga demoon ndeysaanam aji màkka ba muy ñëw gis jaww ji soppeeku ngelaw li bëri poussière bi yëkkati ko mu gis garab yi commencé seen xobi garab yay ruus mu gis cat nga garab yu bëri soppeeku njëkk loola garab yëpp dafa safoon suukar xobi garab mosta ruus poussière mosta yëkkati bay fatt nit aadama ne am na lu xew de da ko wax ci làng wam doon wax déggoon a arab déggoon a junney làng wax ja nag benn saayir ñëw way ko waaye aadama du wutoon waykat ba aadama ne jamono jaww gi soppeeku na waaye kaw suuf de pënd na mbooleem couleur yi soppeeku nañ ak cof nga lan moo xew nag lam waxoon mooy wax ji ka gayratil bilaadu wa man alayha fa wajhul ardi muxbarun qabiix ba mu waxee loolu ne taxayara kullu vi taamin wa lawnin wa qalla basaasatul wajhil maliix ci lañ ko tontu ne ne ko aba habila qad qutilaa jamiican wa saara alxayu kalmayti dabiix wa jaa bi sarrin wa jaa bi sarratin qad kaana minha ala xawfin fa jaa minha yusiix aa ah, Adama xam ne daal ñu ne ko daal aa ah, Qaabil de ak Haabil rayante nañ looloo waral tey jaww ji soppeeku bu poussière bi yëkkatiku mbooleem xeeti gàncax yi seen caf ngay soppandiku xobi garab ya commencé ruus boo demee ci ëhlu taarix ak siyar dañuy wax ne aadama wayut way wi ba mu ko gisee rek dafa wax wax jooja su ko defee ni benn waykat moo woy way wax su ko defee loolu la ibnu jarir gëm ibnu xumaydi tamit loolu la gëm waaye aadama moom ak yonantu beeg yonantu yëpp ñoo moom wama allamnaahu si'ra wama yanbaghi lahu amul ci yonantu yàlla yi ku ci nekk di saa'ir amul ci woon ñu xamal ko nag ni ko Qaabil yi Haabil rayante de lii rek moo ko waral su ko defee kon nag ya aadamay dénk siisa ngir bañ li dal ñii di ay magam dal ko ñi yàq fuuf bañ bañ di bëgg bëgg yàq leer gi waaye si sa doom ju baax la ku sel la ku tedd la tabaarakallaahu jël na dénkaane ba naka ko baayam aadama dénkee woon daal dara yàquwut ca lépp rafetal na ko ba ni mu xëy jébbale leer ga su ko defee waaye dara yàqoowut ci moom loolu boroom xam-xami siira yépp d'accord nañ ci tagg nañ ci siisa Euh, su ko defee nag mamalaaji Maalik nga koy tagg mu ne siisa moomu mooy ki nga xam ne mooy wasiyal asli moom siisa muntaqilan nag miin xiiratil karamin lil karami su ko defee kon nag may gu rëy googu la ko yàlla defal moom siisa di doomu suñu maam aadama gannaaw bi leer gi toxaloo ci aadama ci moom la ñëw moo tax mu ne lillaahi nuurun yakunu llaahu mudiahu abal wara taahiran fi taahiri siyami wa kaana siidu wasiyal asli muntaqilan min xiiratin karamin lil xiiratin karami hatta ntaha bi sumuusi nuuri muftaqiran li qaadatil urbi fihral jillati nuxumi kon nag siisaa ngóob leer gi ñëw na ci moom kon yonantu bi sallallahu alayhi wa bi leer gi bàyyeekoo ci euh, euh, ku tedd kooku di Adama ca siisa la dem boo demee ca téere bu ñu tuddee xasaayisil kubra mu ne bi mu bàyyee ko ci siisa mi ngi bàyyi ngi jëm ci malaayin ci lay door a ñëw nag ci Idrissa ci la Idrissa jële mayam gu rëy googa amee ci wa rafaxnaahu makaanan aliyan yàlla dogal mooy ki njëkk a bind ci xaliba am ca lam ca am yàlla defal ko ci ruy lu lam ko ca defal ba tax tabaarakallaahu mu jagoo ko muy ngëneel yoo xam ne nii yu rëy rëy rëy la kon nag siisaa ngoog ak la ca xaju leer ga ñëw tabaarakallaahu ba ci Idrisa ca lay toxalu ñëw ba ci yonantu yàlla noox looloo waraloon noox mën dugg ca gaal ga te fekk na labut loolu lay toxalu di ñëw ba ci sayiduna ibrahim looloo waraloon bañ ko dugalee ci safara wa lakkut noonu lay leer gi départ di toxalu ba ci sayiduna muusa looloo waraloon tabaarakallaahu ba ko firawna dàqee mu xuus ndox ma suraxut noonu lay toxaloo ba ci Seydunaa Iisaa moo tax ba ko nit ña lee bëgg koo rey yàlla ne wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum ba rafaxahu laahu ilayhi rek moo cay tegu moo tax maanaam mujj mucc noonu lay continuer di ñëw ba ci Abdallahi ba ci Abdul Muttalib looloo waraloon ba Abraha defee pexeem ya jàpp lu man ñaar téeméeri gëléemam mu ñëw laaj ko ko te danaa ci yegg si mu ne ko yaa ñàkk fulla bi ma la gisee réew nga samay bët bi nga àddoo rek da ngaa tuuti samay bët foogoo ne kaaba gi nga ñëw di ko protéger mu ne ko nit du protéger lu mu moomut kaaba gi kii ko moom dana ko protéger man sama gëléem yi laa bëgg nga jox ma mu ne ko jël ko sa dem defee tamit looloo waral loola lu ko defee leer gi jaar gi mu jaar fii yëpp moom nga dégg bàyyi tësam ba Abbas di ko way xaakim ak tabaraani yu solo nañ ko mu ne yonantu bi salaa salaam ba mu ñëwee Abbas a ko tiim di ko way ne ko dama laa bëgg a tagg yonantu bi ne ko waxal lu la neex dafa ne ko inni mu ne ko inni uridu an am dama laa bëgg a tagg mu ne ko kon nag xul waaye nag laa yu fab fitlaahu faaka yàlla bu la gémmañ jàpp waaye waxal loo bëgg a wax ci lay wax ne ko min qabliha tibta fi zilaali wa fii mustawdain xaytu yaxsifu waraqu suma hëbbatal bilaada laa basarun anta wala mudgatun wala alaqu bal nutfatun tarkabu safina waqat uljima nasran wa ahlahu algaraqu tanqulu min salibin ila rahamin ila ruhumin ida mada alamun bada tabaqu waaye tamit warata naaran li xalilin mustatiran fi sulbihi anta kayfa yaxtariqu xatta stawaa baytuka almuhayminu min min xandaqin aliyaa taxtaha nutuqu wa anta lama wulitta asraqatil ard asraqatil ard wadaat bi nuurikal ufuqu fa nahnu fi daaka diyaai wa fi nuur wa fi nuuri wa subuli rasaadi taftariqu lii moom kenn mosu ko wax yonantu bi Abbaas a koy wax ne ko yaay ki nga xam ne dangaa teeyoon njëkk ngay feeñ sa xaqiqatul muhammadi bi ci teey la sosu baxee ko ci ku teey nga nekk nag ku ñu dénk mu jël xaqiqa ba dénk ko muy toxalu di toxalu ba nga wàcc ci ci suuf si ba nga wàccee ñu xamuñ duhoo mbindéef duhoo mudduxa duhoo alaq waaye yaa doon yaa doon lutfatu bi waroon ca gaal ga ca yonentu yàlla noox ñu ñam ña lab nga sowewu ngay toxalu ci ay ndigg di jëm ci ay ruxum saa yoo xamee ne ab xaalam feeñ na rek nga nga nga feeñ nekk maanaam tabaxu ba mu ne ko yaay kii watoon ca safaraaw Ibrahima wa nëbbu ca ndiggam la moo taxoon lakkut lii la continuer di ko ko wax di ko ko wax tabaarakallaahu ci tajin yu rëy yu rafet yii le di wane leer gi ak fi mu jaar ca ñooña fi mu jaar tamit ci liggéey bu rëy bile ku mu jaar ci yow rek am nga jeexital xoolal dana fi ca Abdullahi ma tax ba ko soxna yay sàkku mu ne amal xaraamu fal mamaatu duunahu wal xillu laa xilla fastabiinuhu fa kayfa lil amru lazi tabginahu yaxmil karimu irdahu wax ju rëy jooju la Abdullahi wax ne kon lu yàlla xaraamal dee ma ko gënal lu dagan xaw ma ci frontière li ngay bëgg a sàkku mënta xam ku tedd dafa war a xer dafa war a protéger diineem dafa war a protéger tamit euh, deram mu wax ko wax juróoy jooju su ko defee kon nag leer gaa nga noona di def maninam ba xeg si ci Abdallahi mi de bu Abdallahi nag dafa am ay maam yu ko meññi abdallahi soo ko jëlee abdul muttalib mooy baayam abdul muttalib haashima ko jur moom la ñuy dàkkantalee haasumul juudi haashim abdu manaaf ko jur abdu manaaf xusay moo ko jur xusay kilaab ko jur kilaab murata murata kaaba ko jur kaab lu ay lu ay xaalib moo ko jur xaalib xaalib fihru fihru malik ko jur malik nadir nadir nadir man ko nadiru xamra nadir kinaanata kinaanata xusaymatu xusaymatu mudrikatu mudrikatu ilias ilias nag mudar moo ko jur moom la mudar nisaara ko jur nisaar maat maat nag xaddunaa na ko jur xadd naan nag lañ dégg yonantu bu daan lim ba xeg ci noppi ba dafa daan wax ne bu leen ma yëkkati lu kawe xadd naan kuy limati ba xeg ci xadd naan rekk noppi kon soo bëggee maandu booy lim maami yonantu maadan man yu jaawi saat naanan fa takfibuhu qad jaa min al alami wax jooju mooy li wér maamam yi ma limal la yépp nag daanaka kenn ku ci nekk tur wiñ la jox du wut sa tur original boo ma toppee ma farañ fànceel la maam yooyu maam xalifa di wax ne wa judoodun zawaibun fil baraya kullu badrin bihil ana mustidaau anta taahal aminu anta safiul xalqi lamma lam tastai sufaawu dem na ca bane ko a yow yonantu boobu may tagg safiul xalqi lamma lam tastai sufaawu yaay najlu abdillahi su ko defee abdullahi moomu abdul muttalib jur ko muy dem haashim jur ko dama lay wax nag ñooña seen tur ya nga xam ne kenn ku ci nekk nañ ko tuddee du turu dëgg dëggalam la turu dëgg dëggal Abdoulaye moom noonu la tudd Abdoulaye mii jur ko ku gàtt fan la ñaar fukki at ak juróom la dudd mooy bàyyi yonent bi moo tax yàgg fi xamut solo li xam solo pire mooy yàggee fi xam ngeen ne Abdoulaye yàggu fi de waaye yàggee na fi de moo tax booy seet ci histoire ñi gën a marqué seen dund ci histoire boo leen xoolee gudduñu fan sayyidatuna Maryama mii ngeen ñi wax fanweeri at la dund mii yu Iisaa xoolal ni mu gàttee fan nga gis tamit Abdalaahi mi meññ sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam liggéeyam bu rëy bi mu fi def lépp ñaar fukki at ak juróom tabaarakallaahu moom la dund yàggut fi de waaye yàggee na fi ba péncam yàlla lu mu fi liggéey histoire dutu ko fàtteeti muy moom Abdallahi mu tedd mi tabaarakallaahu di bàyyi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne bi yonantu bi amee ñaari weer ci biiru yaayam ci la abdallahi mu tedd mii di bàyyi yonantu bi ci la wuyu ji boromam su ko defee ba muy wuyu ji boromam fan wa guddut oh, waaye tabaarakallaahu lim fi def ba péncam yàlla nit dootul ko fàtteeti su ko defee ñaar fukki at juróom la fi am oh, waaye nag histoire dootul fàtteeti dund bu rëy bi nga xamee ne nii def na ko fi moom Abdoulaye mu donn moom Abdoulaye mi ne turam dëgg moom tamit Abdoulaye rek la mooy jaamab yàlla bi moom nag mooy ki gën tuuti ci doomi Abdul Muttalib yi Abdul Muttalib góor gu njaboot la waaye Abdullahi moom mooy doomam ji gën a tuuti ca doomam ya kon abdullahi mi jur yonantu bi xam na ay doomi baay am ay doomu ndey waaye moom yonantu bi moom bàjjo la moom moom rekk la baayam xam moom yonantu bu tedd bi tamit moom rekk la ñaar fukki at ak juróom la xam wuyu ji boromam mi ngi gaañoo ci place bi nga tuddee Abwa dafa tukki woon feebar daane ko fa mu mujj génn fa àdduna ca madinatul munawara la ñi denc ko ci kër taabixatu ca madina ndeke madina gii ñi denc ko doomam ji mu bàyyi ñaari weer ci biiru yaayam dana juddu màgg war a gàddaay ci madina ba xilif madina ak màkka ba xilif àdduna bi war a fekk si baayam fii ci dëkk bi ñu suul ko fi nga xam na yàlla kenn du moom kër taabixatu lañ ko denc boo demee Medina mën a neex la sob danañ la woñ fan denc baayam moom nag ba muy génn àdduna bàyyi doomam jile ci biiru yaayam bayee na ko jaasi yonent bi donn na benn jaasi ci baayam baayam jàmbaar la woon jàmbaar yi fàkk tëdd donn na ci baayam benn jéebéer bu jigéen buñ na jéebéer rek muy jaariyatu ku jigéen la waaye am na kum donn koo xam ne góor la muy suquraan ci baayam la ko donnoo ba ñuy suul yonent bi bokkoon na ki nga doon defar pax ma doon na ci baayam jët ak gàtt baayam ah, jarga la woon yore woon tabaarakallaahu ay gëléem yore woon ay xar ak i bëy xar ak bëy nag gétt la ci doon moom yonent bi waaye nag gëléem moom juróomi gëléem la ci doon juróomi gëléem la doon ci baayam bàyyi doon na dara ci xaalis xaalis ci wàllu xaalis waaye somba nim toll boroom xam-xam yi waxuñ ko dañ ne dara ci xaalis rek la doon ci baayam kon lii la doon waaye doon na génn kër su ko defee tamit ci baayam moo tax aminatu maanaam abdullahi mile ak génn àddunaam gaag fam génnee àddunaak ñaata xat la xam ak lépp maam xalifa mi ñu koy portaleel ci benn téere bu màgg boo xam ne laamiya la ah, eh, laamiya la baxru ba baxru basid la su ko defee mu tuddee ko naylul maraam téere la boo xam ne baayam alaaji Abdoulaye Niass gàmmu na ci fukki xat di gàmmoo ci xam-xamu doomam maam Khalifa Niass booba fekk njëkk loola li bu sëy ruy way la daan baayam di nettali li maam Khalifa taalifee téere bi ba am alaaji Abdoulaye Niass ne kuy wàlliyaan sa kër a tëgg sama doom ji li mu wax moo gën a foor li bu sëy ruy wax yonantu bi li des ci sama dund lépp xam-xamam laay gàmmoo waykat ya di way ca diggante rakk ya ca diggante taalibe ya maamalaaji di firi lii maamalaaji def ko fukki at moom mu mujj bi nag ci la maam xalifa door a taalif hamsiya bu hamsiya bu siiw ba ñu tudde mir atu safaa su ko defee nag benn at la ci baayam gàmmu at mooma sax bañ koy way maamalaaji mu ne sama néeg dafa leer nañ yonentu bi feeñu ma ca xamal ma ne sa doom ji di maam xalifa bég naa ci moom bég naa ci tagg yi ma tagg rawatina téeréem bii rawatina nag fi muy tuddee sama bind bi ak sama jikko ji moom ma ci gën a neex kon téere boobu nag di téere bu mu njëkk a taalif ci jamonoy baayam baayam gàmmu ci lay maam xalifa di wax génn ak abdullahi ne xaddaa walil xamli fil abwaa'i fi safarin sëhraani waaliduhu aw daari axwaali min baxdi xamsin tali min xijajin madat li umri axi ifdaali wa kaana madfunuhu fi daari taabiatin min almadinati zaati mansibi alaali wa kaana matrukuhu sayfan wa jaariyatan wa qitatan ganaman ma xamsi ajmaali wal baadu min waraqin aydan yudaafu lida wa minhu suqraanun wa minhu suqraanu aydan duuna iskaali wa najluhu saalihun daarun li aminatin fi shaabi qad xasaha min jumlati almaali kon lii la doon moo ci baayam gannaaw bi baayam huyu jee boromam ñaar fukki xatam ak juróom booba moom la abdul abdullahi mi jur yonantu bi am huyu ji boromam bàyyil toll nii ci alal bàyyee ko doomam ji nga xam ne moom rekk la xam ba muy dem doom jàng ci biiru yaayam ba am ci biiru weer wa ñaari weer abdullahi moomu nag abdul muttalib abdul muttalib duut turam waaye turam dëgg dëgg dëgg dëgg mooy saybatul xamdi ndax moom baayam di Hashim yàlla da ko dogaloon mu takk soxna ba mu takkee soxna moom Hashim yàlla dogal soxna sa dem ba ëmb mu mu mu yëg ne dafay ñibbi te noonu dafay wuy ji boromam mu digal ne su juddoo na ngeen ko tuddee saybatul hamdi ndax béjjaaw bi bopp bi dafay béjjaaw digg bopp bi dafay weex tàll te Abdul Mutalib digg bee digg digg bopp bi dafa weexoon tàll dafa ko juddoo xale moo tax ñu koy tuddee saybatul hamdi tur la woo xam ne baayam moo ko bàttali ne nañ ko tuddee avant muy génn àdduna moo tax ba mu génnee àdduna booba weex tàll digg booba ñu ne ko sa baay day wax na dëgg ba na tuddee saybatul hamdi waaye Abdul Mutalib jële nag ñi ko koy wax dañoo demoon tabaarakallaahu mu talib doomu baayam la mu dem di ko jëli biñ koy jëli nag moom Hashim jëli giñ doon jëli Abdul Muttalib Muttalib kon ah gaayee dàqante moom ak la ca xew ca histoire ba xeex ba ak nam rafetee woon taaru mu bañ nit ñi soxoree ko ko mu ne leen jaamam mu talib la far ñi tudd nag mu talib moom a ngi doon jëli moom mii di ko doon ko jëli saybatu tudd gim ko baatal ne abdul mutalib ñu ne far ñu ne abdul mutalib far tuddee ko loola déedéet mutalib la demoon di jëli moom abdul mutalib mii saybatul hamdi tudd googu ne mu wattali ne sama jaam la nag ngir bañ ñu soxoree ko ko far moom ñi foo ne moom moo ma doon jëli kooka mooy far tudd abdul mutalib déedéet waaye turam dëgg daal saybatul hamdi la moom dafa doon jëli mutalib rek mu loolu kon mooy wax ja Haasim tamit dëgg dëgg turam mooy Omar waaye fa baaxoo woon tabe di lakk yàq di ko jox nit ñi fekk nit ñaa ci beekoor moom nga dégg saayir ba ne omarul ula hasama sarida li qawmihi wa rijaalu makkata na hijaaf waaye loolu mooy turam mooy mooy omar rek boo jëlee tamit Abdu Manaaf mii di maamam turam dëgg mooy Mugiiratu loolu la euh, loolu la loolu la boroom xam-xam yi wax waaye dañ koy dàkkantale badrul bi taax weeru màkk dafa rafetoon lool saahibul kansi nee na kuniyatoom dëgg nag mooy Abdou Samsin waaye man naa turu xiram la waaye rafet gi mu rafetoon moo ñu koy ñu koy dàkkantale maanaam xam ñu koy dàkkantale badrul bi taax di ko di ko di ko dàkkantale Abdou Samsin waaye turam dëgg mooy muxiiratu su ko defee geneen maamam ji mooy Qusay Qusay mile la saayir ba ne abukum Qusay kaana yudaa mu jamaan mu jamaan lañ ko daan tuddee su ko defee nag bi bihi jamaa allahu qabaila min fihru ci moom la yàlla dajalee qabail yëpp ci fihru su ko defee moom dafa sori woon nitam ña rek sori woon nitam ña ànd ak yaayam fatimatu nekk ca biraadu xudaata gannaaw bi baayam gaañoo baayam fa gaañu mu nekk ndaw yaayam yóbbu ko rek te bilaadu xudaata tax ñu koy tuddee xusa yi ngir sori gim sori mbokkam yi ñu nekk màkka waaye turam dëgg-dëgg mooy mu jama boo jëlee kilaab ca maam yàlla turam mooy hakim dañ koy wax urwatu dafa daan rëbbi di ànd ak ay xaj moo tax ñu tuddee ko kilaab ñenn ñene déeréet bi ngi bàyyi ko ci kaalabtul aduwa mu kaalabatu ci la bàyyi ko muy kaalabtul aduwa mu kaalabatan wa kilaaban dafa daan xeex ak noon di leen gañe arab yi dañoo baaxoo woon loolu su ko defee moo tax ñu tuddee ko xilaat waaye lu ci mën a xam ñaar yëpp baax na benn mu daan xut bi ànd ak ay xaj wala benn bu bëriwul lu doon xeex te bu xeexee mooy gañe ñi far tuddee ko xilaat loolu ñaar yëpp jamtalu na su ko defee tamit ndax loolu wa haadihi aadatul arab na abnaahum arab yi dañ daan jël seen doom di leen tuddee xaj ñu leen tuddee gaynde ñu leen tuddee ngir gar nga ci ñoom ak njàmbaar ñi ragal leen seen jaam yi ñu ne ñu tuddee tur yu rafet lu mel ni masruuq lu mel ni yasaar lu mel ni rabaax ngir bëgg buñ leen di jaay man caa xam ah, ah, ah, maanaam bénéfice boo jëlee muratu ca maam yàlla ak kaab ak lu ayu ak xaalib ak sihru waaye loolu duhut seen tur yee de boo jëlee kaab ala ku haal mooy tekki rek ku yëkkatiku ku daraja ku màgg ku foor ku tedd moom nag ci lañ daan taarixal njëkk yonent bi di juddu lañ daan taarixal ci juddu Kaab gannaaw si gi bi Abraha ñëwee di di kii ñay wa ak ñayam ya danañ ci xeg si ci lañ commencé di taarixalee ci ñëw ak Abraha amal fiili waaye njëkk lool ci moom rek lañ daan taarixalee ngir ak màgg gi nga xam ne Kaab màgg na ko waaye turam dëgg dëgg dëgg duut Kaab euh, su ko defee moom Euh, mooy ki beesal limu Quraysh yi euh, giir yi waaye Kaab mooy tekki rek boo demee ci kansul asrar azimul qadri ind al arab loolu lañ koy wax euh, su ko defee nag diggante fi mu génnee àdduna ak fi abrahati ñëwee pour di kii ñay wi ne day toj ci kaaba gi juróomi téeméeri at la ak juróom benn fukk boo demee ti iktifaaw loolu la wax waaye moom nag ci lañ doon taarixal kon kaaba ngoog lu ay dañ koo tasxiir rek ci la a mooy firi nagu njaaxal euh, euh, moom moom lañ koy ci maamam yàlla xaalib dafa bari woon lu doon xare di gañe rek ñi far tuddee ko ko boo jëlee fihru mooy firi doj rek waaye moom nag ci la mbooleem xabaayilu Quraysh yi ci la soqee ko moom boo leen dàqee rek ci moom lañu daanu ji su ko defee tamit euh, Quraysh yi moom lañ ko tuddee noona waaye lu rek mooy mooy wax ji moom su ko defee kon nag Malik ak Nadir kinaanatu minhum matu ak mudriku ñooñ la kon boo jëlee Nadir ca maam yàlla sallallahu alayhi wa kinaanatu ca maam yàlla waaye tamit xusaymatu ca maam yàlla mudrikatu ca maam yàlla ñii ñooy maami yonantu bi Ilias noonu mudarul xamra noona nisaar ak maat demeet ñoom ñoo ñooñu ñooy ay maamam ba ci xadd naan moo tax maam xalifa ne xadd naan ñëpp ci dëppoo booy lim ba ci xadd naan moo tax ma ne suma summa xadd naanu bittifaaqi walakin baadahu qad taxaalafa al anbaaw dafa bëgg wax ne maami yonent bi dafa loo xam ne muttafaq la li ko doree ci abdalaayi ba ci adnaan la ñëpp ci dëppoo waaye nag li ko doree ci adnaan ba ca ibrahima muxtalaf la bañ cee wuutee moo tax mu indi walakin baadahu qad taxaalafal anba ñii ñooy maami yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam maamam yu tedd yu sell yaa ngóog maamam yi ne boo leen di jël ñoom tamit dañoo njaboot maamam yu ne am nañ man am nañ ay njaboot tabaarakallaahu boo ma toppee suba ci waxtu wi nag ma limal la njabootu maamam yi maamam yi kenn ku ci nekk ñaata doom nga xamoon su ko defee tamit su ma ci bàyyeekoo limal la maamam yu jigéen yi tabaarakallaahu ba ko defee nag door a ñëw nag ci yonantu bi door a dugg ci ay jaar-jaaram ak ah, ak dundam beeg li xaju lu ci aju lépp topp ma suba ci waxtu wi insha allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu